jërëjëf mbokk internet yi bu rek ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ak fooy mën a ne del ak yéen ci beneen jotaayu xam-xam ki ñu fii dajal tey xam ngeen ko xam naa ko di soxna Adama Sarr seetkat bu mag bi waaye fajkatu aajo bu mag bi macha allah séeréer bu mag bi saltige bu mag bi tey nag danañu waxtaane est-ce que Sénégal mën na jël coupe bi wóoruñu seet mën na ko wane waaye combat bi nga xamante ne taxaw na war a dox ci diggante Balla Gaye 2 ak ki nga moom mooy Tapha Tine luñ ci seet wan rek danañu ko waxtaanee bu soobee yàlla soxna moom maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu ñu lay seetaan. waaw maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu di la nuyu yow mi ci sa bopp. Mhm. yow buur maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant. Mhm. di nuyu waa Sénégal. Mhm. di nuyu waa dëkk bi yëpp daal. kilifa aada yeeg kilifa diina yëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant. waaw. soxna. équipe nationale coow li bari na ci de. waaw coow li dana dana gagné coupe du ko gagné danañ ko dóor ak. tey lu la ci seet mën a wan ci mbiru équipe nationale suñu équipe bi. est ce que mën nañ jëlaat bi wala xeex bi dafa bari wala gàllankoor yi daf ci bari. Mhm. wala fu ñu mën a jaar lu la ci seet mun a wan. man seet bi liñ ci liñ ci mun a lu fi. seet keroog moom neewoon nga ma Sénégal day gagné ma ne la Sénégal dina gagné. waxoon naa leen ko. waaw ba mu am. Mhm. Mhm. waaw bii yoon tamit. dina metti nag. dina metti waaye eh, man daal ñoom laa gis. mën nañu sori. waaw mën nañu sori torop waaw. mun nañu sori trop. Mhm. parce que ñoom dañoo am taxawaay dëgg. Mhm. waaw ni ma leen gisee. Mhm. taxawaay bi moo taxaw ba taxawaay moom am nañ ko. ci wàllu ñaan yàlla. ah. ah maanaam am nañ taxawaay ci wàllu ñaan yàlla. ci wa ñaanu yàlla ñaanu yàlla ak ah, comme ni ñu taxawee daal. fi mu ne nii période bi ñu toll nii. man li ma gis ci ñoom. Ah, dina baax ci kanam. dana baax ci kanam. combat bi taxaw na. Tapha Tine Balla Gaye 2. keroog moom newoon nga Tapha bu mu jël Modou ba làkk ko ci séeréer. waaw ne ko bu jële bu ko jëlee baaxul. Mhm. mbiru Balla Gaye 2 ak Tapha lu ci seet wane. man li ma gis ci seet bi. Mhm. man Balla laa gis. moom nga gis mu am ndam ci kaw Tapha ndam waaw waaye dina metti nag. Mhm. waaw. dina am dina am ay gaañ-gaañ daal. deret dina ci tuuru. waaw. dina ci am ay gaañ-gaañ. waaye Balla laa gis. Mm-hmm. waaw. soxlaa dama sa diggante ak seet keroog bi ñu feeñee bi nga feeñee émission bu njëkk bi ñu ci bari jokkoon nañu ak yow ci seet. ci seet bi. naka lañu ñu dundee naka nga dundee ak clients yi la doon seetloo. seen xol sedd na seen xol sedd na guy. Mm-hmm. ñoom sax xam nañ ko. Mm-hmm. waaw ba bi ci guddi sax am na ku teel toll fu sori sax. di ma woo téléphone. di ma yow. ah ñun de mosuñu laa gis ci te ci kii ci internet bi. Mhm. man buur maay génne man maa la man maa la mu ne ma. Mhm. Eh, yow gis naa la buur di la génn ci ci internet bi. ma ne mhm. ko waaw man la. mu ne ma yow de maa ngi lay doog a gis. ma ne ko man nag bariwuma di ma da di bari man daawuma génne sax. ci internet beeg ak télé yëpp daawuma ci génn maa ngi ciy doog a génne ren jii. waaw mu ne ma yow de loo wax nit. man ci li ma wax mu ne ma waaw mu ne ma lu leer naññ la. mais soxna si man li gën a garaaw li gën a yéeme ci seen mbir. mooy petaaw ñoo lay wax wala dafa am lu lay dee. man sax damay seet ci téléphone te duma ma laal petaaw. ngay seet ak day am. nit ki wala rek nga wax ko. waaw léeg ma nekk fu sori dem génn nit woo ma ma seetal ko ci téléphone bi. Mhm. waaw. mais soxla yi ngay faj ci sarax sa sarax moo doy waar. waaw sarax bi. Mhm. sarax bu ma mun a diggal nit bu ko caaxaanewul mun na ko génne. yàlla mun na ko ci am ndam mun na ko cee may ndam mhm. waaw jigéen ñi nga xamante ne que dañ may jooytu lu bare bare bare jigéen ju taxaw toog lu yàgg jurul mhm. wala jigéen ju bëgg sëy mhm. sonaano am nañ ay pexe ah, am nay sarax yoo xam ne bu ma la ko digalee yàlla mun na cee def saafara waaw sarax yi mais foog nga seetal nit waaw il faut ma seetal ko il faut ma seetal ko ba gis ko léppam Mm-hmm. ma doog koo diggal ay sarax yi nga xam ne moo koy moo koy aar moo koy may ndam mm-hmm. waaw sarax mën na wane ndam moo bu bari mm-hmm. bu baax sax bu baax sarax day aar nit sarax sarax day aar nit d'accord kii bi sax baax na sangat yi baax na sangat yi baax na waaye sarax yi moo war a jiitu Mm-hmm. waaw sarax moo war a jiitu gàllaaj bi waaw moo war a jiitu gàllaaj bi ak sangat bi mm-hmm. parce que dangay ngay da ngay dem ci seetkat mm-hmm. balaa mu lay digal balaa mu lay jox cangat mu daf la war a sarax dina la digal sarax ba pare ba nga génne ko voilà nga doog a kii nag nga doog nga doog a mu doog laa jox ay ñaan yooyu daal waaw bu dee borom a sunu sunu arxuraan yi kooku day noonu la def bu dee borom xam-xam yi ñuul yi borom reen yi. Mhm. noonu la ñuy def il faut ñu ñu génne la sarax. yéen séeréer lu tax ngeen ngeen ngeen fonk ñaan yàlla <laughs> ci maanaam ci yëfi cosaan. yëfi moom da ko fonk lool lool lool lool lool lool lool. waaw man loolu jaaxal yëfu cosaan. Mhm. yëfu cosaan léegi la ko nit ñi bàyyi de nit ñi ñu bari dañ ko xaw a sàggane léegi. Mhm. waaye lu baax la ci nit. waaw waaye nit ñi léegi dañ koo xaw a sàggane. dañ ko xaw a sàggane trop léeg-léeg ngay wax nit affaire affaire cosaan sax mu ne mu mel ni ñu ku ko xam ni daal daf koy soofantal. daf ah, mhm. gëmuma ay rek gëmuma yooyu walla gëmuma yooyu. am na ñoo xam ne nag dañu mm. naan gëmuma lii. Mm. te ñoom ñooy yolleeku nem dem ci ñun ñi ñëw di ñu di yolleeku ndànk di ñëw ci ñun te bu bëccëgee ñu naan man gëmuma loolu am na ñu koy def. mais man dama gis ni yéen séeréer si. Mhm. ci yëfi cosaan ngeen daal samp ngeen sampee buur bu ne. ba tey samp ci ponkal bu ne. ba tey moo fa ne. Mm-hmm. ba tey moo fa nekk mm-hmm. ponkal yu mag yi am na ci ñu bari ñoo xam ne dañ leen di samp mm-hmm. waaw am na mbor yoo xam ne sax dañ leen di samp da ngay gis yaay yoo xam ne sax mooy samp doomam fekke na doom jaa ngi bore mu samp ko samp ko walla bu fekkente doomam a ngi bore ji yaa ji du du du du day day yéen day yendu di def lu muy def ci kër ga ba doom ji di ñibbisi soo naana lu mu def ak affaire cat koo xam ne cat daf ko jàpp di ko yàqal fu mu toll walla rab topp ko di ko yàqal fu mu tol loolu nag ñun bu dee ñun jigéen yi. ñun mm. jigéen ci seen bopp. Mm. ah jigéen yi eh, dañuy musóoru. Mm-hmm. bàyyi bopp neen bàyyi bopp neen noonu. soxna Adama am na ci ay pexe. am na ci ay pexe. yoo xam ne tey bu nit ki jë bu la woowoon tey pour nga dimbali ko ci càqale ko. ram affaire cat wala am na cat moom mm-hmm. am nañ ko. Mm-hmm. cat moom xam am na lu ma ci xam. ci mm-hmm. cat waaw. cat moom xam na waaye rab moom. affaire rab neexu la am na rab yoo xam ne neexuloo neexuñoo dindi parce que am na rab yoo xam ne rabu cosaan la. waaw rabu cosaan la yoo xam ne ay maamaati maam yi ñoo ko fi bàyyi. waaw mu am rab yoo xam ne nag dangay taseeg ñoom. Mm-hmm. waaw moo tax jigéen dafa war di muuru wala muy mm-hmm. muy musóoru mm-hmm. waaw loolu la jigéen ñi daal nañu fonk seeni cër bu ñu bëggee mucc ci rab yi voilà loolu la waaye bàyyi sa bopp ni musóor woo sol yére bu gàtt loolu day tax rab daal di gaaw laa gaaw laa dugg soxna Adama dina dina sangat nit hmm? di nga sangat nit sangat wàllu cangat wàllu cangat waaw ku ñëwoon tey pour nga sang ko defaral ko yaramam waaw. Mhm. waaw. Mhm. day am. yëfi séeréer daal. waaw. yëfi séeréer njaq yee ngi fi njaq cosaan yi. <laughs> yu bari reer yee ngi fi fas yee ngi fi. ñëpp ngi fi. kon daal waa Simal Poudaye daal taxaw na waa Simal. ndeysaan <laughs> <laughs> di dëkk bu yàlla yàgg may ay boromi xam-xam. Mhm. Euh, askanu séeréer di dama wax ni séeréer ñoo gën a neex a jëflanteel ndax ñaar dal la leen séeréer du fen <laughs> waaw séeréer du wor. amuñu wor. waaw séeréer amuñu wor te séeréer mënuñoo mënuñoo fen. xamuñu ko. Mm-hmm. xanaa jamono moo soppeeku léegi rek waaye xamuñu woon loolu. Mm-hmm. Mm-hmm. ñoom dañoo doylu woon. doylu bi loo leen jox rek mun nañ mun nañ cee mun nañ cee jàpp. damay xool soxna Adama xam-xam bi ko yàlla may. man nee naa soxna Adama ñun ñoo ko njëkk génne de par sama sama soxna. moo ma ni maire bii di jaay ndox fee. ku yàlla may la ku mën a seet mhm. jël ko nga wane ko ndax yàlla may na ko xam-xam dëgg la su naa dama xam-xam boobu mu amoon teewul mu ngi jaay ndox di dund ci ngorom rek dogal la dëgg la te ba tey maa ngi ci mhm. waaw maa ngi ci daal te xam-xam bi nga xam ni mën na la dundal xam-xam bi mhm. waaye man eh, gor la xëy na bés bee jotagul rek dana jot bés moom dina ñëw comme yàlla bool ne la ak buur moom adduna dina nga xam bu soob yàlla <laughs> ndax ñi nga war a jariñ ci àdduna bi euh, bari na mm-hmm. ñi nga war a jëflanteel bari na mm-hmm. yéen ñi koy seetaan dama naan sama dëkkandoo la bu leen neexee ngeen jëflanteeg moom mm-hmm. insha allah lépp lu mu la ci wàllu seet wala ci wàllu faj wala càngat wala luy dindi cat wala luy dindi rab wala ba ci yéen ñi mu kayit bu ngeen jëflantee ak moom dina leen teg ci yoon boo xam ne yoonu sarax la wala yoonu seet la ndax nit ki balaa nga koy ñaanal day fekk nga mën koo seetal mhm. te moom may wax dëgg yàlla yonent bi aalim la ci seet wax dëgg yàlla ku ku ku mën a seet la sonaara ñu ngi jëm ci élection yi dafa mel ni Ousmane Sonko ci kaso bi ñu ngi naan Karim Wade mooy ñëw ñu ci bari nag dañ jàpp ne Karim Wade bu ñëwee mën na am ndam wala Macky Sall moo fi toogaat wala wala boog nitu mag sàll moo fi toogaat xaw ma loo gis keroog newoon nga ma gars yi seen mbir jeexagul de Macky nguuram jeexagul keroog moom loolu nga mujj wax. ba tey day metti rek. Hmm. dina metti nag. mais nguuram jeexagul ah subhanallah. mettiwul de. dina metti de. waaw dafa mel ni am na taxawaay ci ñaan yàlla. Eh, Macky Sall waaw hmm. am na ko. Hmm. am na ko moom. am na ko de wax dëgg yàlla. ndax li fi jaar lépp dara xew. Mhm. am na fu mu am na fu mu jóg. am na fu mu taxaw. Mhm. waaw. Mhm. Karim Wade gisoo ci mbiram dara. Karim. Ah, mbiru Karim nag mbiru Karim nag. bu doon papam. bu fekkente pàppam papam bu doon ne papam la woon. mën na baax ci moom na baax. waaye moom mi ci boppam moom. Mm-hmm. mbiram daf ma xaw a lëndëm. mbiram dafa xaw a lëndëm. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw yàlla mun na ko may nag. waaw yàlla ko mun waaye ci li seet wane gum seet gisagul ci ay mbiram dara. gisuma dara ci moom wax dëgg yàlla. Ousmane Sonko. kooku tamit gisuma dara ci moom. te ku jekkul taxawaay bu doon woon jafe-jafe bu mu am. kon ba mun na am. waaye. jafe-jafe bi dugg ci moom mm-hmm. moo ko xaw a jéem a yàqal mm-hmm. waaw moom moom mu kii eh, Ousmane Sonko waaw mm-hmm. soxna Adama bu amoon lu muy wax bokki séeréeram yi nekk ci àddina bi yëpp lu muy doon ci séeréer ci séeréer pour ma làkk ko ci séeréer waaw nuuno séeréer yooyu moo ko simnaa nuun gidma nuun nuuno foges fop anduna le anduna le a jeeri a njeejeeri le mais andona ye meen foges a ndef Mm-hmm. ino ka i njeg fogu jejeeri njeg fogu a nduna mm-hmm. eh, jeer fe nak i den moƴma matrice sax mm-hmm. ya ween moƴma ga'a sax e nduna le deg nda moxo gidma nuun eh, gidma nuun na na fop daal xeɗana nuun o kuuɗo ñis warsek fe moƴa gar saytani a fil doox took nuun kon ñokkoon a paax. yow faaxa <laughs>